Thierno Ka ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal gannaaw ba nga accepté suñu invitation. Ah, fàttali ni auditeur yu rajo Rewmi FM ne yow yaay vice président bu CNG di comité national de gestion de la lutte fii ci mim réew di euh, Sénégal. alors euh, Thierno Ka ñu dikkaat tuuti ci lu amoon ci lu yàggul dara ci arène euh, nationale mu di fitna yooyu jiboon ci diggante camp bu Alioune Seye numéro 2 ak bu ñàkk jariñu ci fàttali dimanche gi wees daanaka ay fitna yu tar moo boole woon euh, Alioune Seye numéro 2 ak préparateur mystique bu naataangoowam mu di Ali Ndaw mi nga xamante ni da ko xëppoon saafara. ñu jàpp ni loole en tant que membre CNG rawatina vice président bi da ngeen koy naqaru di ko ñaawlu bu baax a baax. def du lu ñaaw def du lu ñaaw te euh, rafetlu ñu ko dara mhm. effectivement la fa am gëj nañu ko am am na minimum minimum fukki at biir làmb ji am ay ay nit ñuy xeexoo yooyu ci biir làmb ji kooku gëj nañu ko am euh, donc moo tax wax dëgg yàlla li am dimanche dañ koy ñaawlu képp kuy seetaan làmb ak ku dul seetaan làmb sax parce que mhm. sport tëddewul noonu tëddewul noonu mhm. donc vraiment monsieur Ka est-ce que mën nga dikkaat tuuti ci daan yi teg ci ndodd ñi nga xamante ne ñoo andi woon fitna yooyee. affaire bi xaw na yomb sax gaa parce que. Mhm. Euh, benn combat rek la woon. Mhm. diggante euh, ñàkk a jëriñu ak euh, Alioune Seye. Mhm. alors kii sotti saafara si ñàkk jëriñu la àndal. daf ko sotti Alioune Seye. te teg si li ñuy wax lu leer la. mbër bu am adversaire am amul droit sotti ko dara. waxaatuma laak nag koo xam ne kii du bër sax mhm. danga amul ci droit ñaareel bi mooy mhm. euh, euh, ay sa itam yàggan ci làmb ji euh, li mu def mooy jéem a régler problème boppam mhm. alors que am na ay nit ñoo xam ne loolu la loolu mënoon seen métier ñoo leen fa taxawoon a toog ba luñ gis loo xam ne normal rek ñu jéem koo régler mais moom dafay dem xeex ak kooku. Mm-hmm. donc euh, looloo tax ba teg na leen ay daan. Mm-hmm. Euh, moom euh, waa jooju ndaw. te nekkoon ñu sotti saafara si. Mm-hmm. moom dootul dugg géew. moo ak lamb bi fu mu mënti nekk si Sénégal dootul dugg dundoo ñu ko autorisé mu dugg ci biir géew bi. kii itam ñàkk jëriñu dañ koy suspendre. moom dañ ko suspendre moom ak équipe yëpp d'ailleurs. te liñ ci jublu. mooy nit ñi tegal seen bopp ne tegal seen bopp euh, seen baaraam ci loo xam ne lii bëgguñu ko mhm. bëgguñu ko mooy li texte yi wax nañu ko topp donc euh, moom écrit bi am nañu un an de suspension mhm. Alioune Seye am na six mois de suspension comme ni ma ko waxee sànq mhm. parce que bi ko waaye sottee saafara amoon na ay nit ñu fa nekkoon ñuy régler loolu war leen bàyyi def seen liggéey balaa moo jéem moom di régler problème bi. Mhm. ma fàttali ne waa jooju ndaw mooy Aliou ndaw moom mooy euh, préparateur mystique euh, kii di ñaq jariñoo wax nga ko. Mhm. daan yi bokk na ci loo xamante ni mu di ci diir bu toll ci un an ñàkk jariñu mhm. ña nekk ci écurie ba yëpp itam duñu laale ci géew Sénégal la moo tax googee daan. saaweeku xaabaabal weesu ñàkk a jariñu balaa yeneen mbër yi nekk ci écurie ba. am na téeméeri écurie ak ñeent fukk ak juróom-ñaar. Mhm. su ma juumul. Mhm. dañu bëgg beneen écurie bu mu do doon du ñu am comportement boobu. Mhm. donc ni ko tubaab yi di waxee exemplarité. lañu kile nga xam ne bu ñu euh, euh, sanctionné écurie beneen écurie bu nekk dina xam ne balaa moo dugg ci dara. lii moo ko ci fekk amoon na ci te ci texte yi gaa waaye xëy comme dañ ko dañ ci tegal woon seen loxo léegi leer na moo tax ba ñu defee ko noonu am na ñu ne sax bi woyof na xam na ñu na war nañoo waroon nañ koo gën a diisal donc euh, ña bokk ci écurie ak yeneen sànkaar yi ci des doot ñu def seen xel doo doorul xalaat yi def lu mel noonu reliquat euh, ñaq jariñu dañu ko téye wala mm-hmm. dañu ko téye mm-hmm. bu soxal bu Alioune Seye numéro 2 daal li ma xam mooy mm-hmm. reliquat ñaq jariñu téye ko. Mhm. waaw léegi xëy na bu ñu amaatee réunion xëy na ñu daal laa xam. ay la yowin fitna yi gëjoon nañ ko gis ci làmb daanaka toogal nañ lu yàgg yàgg kenn gisu ko mais tey jii. Cheikhna Ka nees mën a def ba fitna bañ a benn yoon ci làmb yi nga xamante ne dafa neex loolu askan wi askan wi sopp na ko bëgg na ko. Eh, eh, eh, lamb mhm. xëy na dafa xaw a weex donc rek waaye stade Demba Diop tëj nañ ko lan moo taxoon ñu tëj ko waaw violence moo amoon ci yeneen discipline yi mhm. ñaata yoon lañ fi dem final nit ñi euh, euh, te àggul. Mhm. waaw kon kay ñun ñoo weex donc rek. Mhm. ñun ñoo weex donc rek waaye nag vraiment loolu moom. Mhm. amul benn sport bu koy nangu. benn parce que sport dafay dajale. du féewale. dëgg waaw bu fekkee ne da dem euh, ci joŋante. sport da yóbbaale ñett. mën ngaa gañe. mën nañ laa gañe mhm. wala ngeen témboo wala ngeen match nul amul beneen mhm. bu fekkente da ngay dem ci làmb gi nag nee ma par force danaa ko def dinaa gañe parce que xëy na sëriñ bi da koy war def lii da ngay war a dañ koy tere mhm. lu ñu tere nag tere lañ ko te balaa ngaa ñëw ci làmb gi dina fekk ñu jox la liste li ñuy bañ yëpp ne la lii loo ki def lii dina la dal waaw kon nag tey euh, bëgguñu ko bëgguñu ko ci làmb bëgguñu ko ci beneen discipline sport ànd àndul ak loolu. mu mel ni monsieur Ka ñenn ci nga xam te léeg-léeg dañuy ànd ak euh, mbër yi dañuy yàqal mbër yi ndaxte ci làmb ji tam lu ñu mënti wax moo di mbër yi ñoo ëpp liñ ciy gagné ñoom tam ñoo war a peut-être bañ yenn yi. waaw ñoom ñoo ko def liggéey di donc effectivement xam nga ñàkk a euh, bi ñu téeri li kaam waajoo gu ndaw euh, andil na ko ay jafe-jafe mm-hmm. te moom liggéeyul mm-hmm. et généralement ñi ànd ay problème yëpp ci biir làmb ji du nekk ay mbër à part affaire Alioune Seye bii dem topp waa ji di jéem di ko mhm. mais à part à part boobu. Mhm. mosoo dégg mbër yu def ay ay ay ay jéey yu mel noonu. Mhm. waaye nag lii am effectivement euh, euh, yenn saa yi dina am ay nit ñoo xam ne dañuy yàqal mbër mi te ne dañu koy dañ koy jéem a jàppale. mais nag kooku ñoom ñoo war a seet seen entourage. ñoom ñoo ko war a parce que man man Thierno mënumaa ñëw naan eh, mbër sàngam mi kii nga war a àndal waroo ànd ak kii. ñoom ñoo mm-hmm. ko war defal seen bopp. Mm-hmm. ñu wax euh, tuuti ci euh, CNG Thierno Ka mu mel ni léegi-léegi ñi nga xamante ni peut-être dañoo nekk ci wàllub làmb dañu koy xaw a ŋàññu tuuti ci yorinu làmb ana lan ngay wax ci euh, critique yooyu des fois donte nag boo jiitee yenn ndogal yoo xam ne dina ñeex ñenn ñi du neex ñeneen ñi. nit mënul a boole ñëpp ñu marché la ñuy xalaate. Mm-hmm. ndagam gën gi mu def la nit ñi doon daan daan ŋàññ. Mm-hmm. est nga xam ne ay simple mortel lañu. Mm-hmm. donc ñu def dara loo xam ne lii nit ñi mën nañ koo na mën nañ koo nangu mm. wala ñeneen duñu ko nangu mm. ñenn ñi ànd si ñenn ñi duñ si ànd kooku moom kooku moom lu lu normal la donc ku nekk rek da ngay wax sa xalaat mm-hmm. ngay wax sa xalaat mm-hmm. waaw ku ne da ngay wax sa xalaat ndax itam kenn mënu toog ci euh, der ba noppi di jëw yàpp waa mais euh, leen daal xam naa ko mm-hmm. ministre Ousmane Paye moo installé woon CNG depuis bi mu fi jógee ba léegi liggéey nañu ak fukki ministre ak ñett. Mhm. ministre des sports. Mhm. kon bu fekkonte ne dañuy seet affaire yooyu rek Ousmane Paye parti socialiste la fi dëkkoon te taw Abdou Diouf. Mhm. Euh, euh, ñi si des si diggante bi am na euh, waa kër Ablaye Wade am na waa kër président Macky Sall léegi donc ñun politique bu fekkonte ne xëy ne la lañuy def ñoom ñi nga xam ne ñi ñooy suñu kilifa d'accord ñu si mhm. ñoom ñooy am pouvoir de nomination ak itam dindi mhm. donc bu fekkente ne bàyyi nañ fi ba léegi xëy na la bëgg ñu ngi ñu ngi leen koy defal mhm. xëy na waaye nag kenn mënul tere nit ñi wax li wax kooku moom kenn mënu ci dara en tant que vice-président bu CNG est-ce que mën nga yee yàbbi tuuti ci combat bi ñu njort ni daa war a dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ndax coow li bari na léeg-léeg ñu ni combat bi taxaw na yenn saa ñu ni combat bi amul en tant que vice-président bu CNG est-ce que combat bi yegg na foofee di CNG. déedéet. Mhm. ak civil civil moo tax su wax du ci bari. Mhm. combat bu ñuy wax. te ñëw ñu enregistré ko CNG donc officialisé ko combat boobu ay combat supputation rek lay koy xalaat. waaye ay wax rek la mm-hmm. donc combat boobu ak beneen combat boo mën dégg te yëgaloo ne ñëw ñu CNG ba enregistré ko foofu ba régularisé ko ni ñu koy waxee. Mm-hmm. Euh, combat boobu amul. Mm-hmm. ba ba ñu gis leneen. donte sax combat yi ñuy wéy di taxaw mais ñu ñu duppee ay euh, tenoor ci arène bi yenn ci ñoom ami jafe-jafe lu waral loolee ci sa xalaat. ah ci xalaat. xëy ne dañu war a toog waxtaan ñoom ñi ñoom ñi liggéey maanaam mbëri ak ñoom ñi leen di liggéeyal. wala mhm. ñi di liggéeyaloo muy promoteur yi ñu seet nu ñu mën a def pour que euh, ñu mën a euh, déggoo ci kàddu pour mën a bëri parce que itam am na fi temps boo xam bi bari woon na xaalis ci biir làmb ji mhm. waaye dafa mel ni temps yooyu woni na. Mhm. donc il faut que nit ñi comprendre loolu. bu fekkente ne nag yow yaa ngi. Euh, yaay jaay sa marchandise yaay seetal sa bopp li nga xam ne li moo lay arrangé bu fekkente ne bañ a bëree ci li ngay fay moo la gënal eh, eh, eh, nga taamu toog bañ a bëree du mhm. mais kooku yow yaa boobu décision waaye xam naa ne damay dégg di liiri si journaux yi di dégg si rajo yi na dem naa waxtaan ak moom waaye d'accord mhm. ah, ñoom ñoo war a seetaat seen bopp ñoom ñuy fay ak ñoom ñi ñuy sëy mhm. ñoom ñoo war a seetaat seen bopp mhm. wax nga ko ñoom ñoo waaye li nga xam ne mën nañ ko wax daal mooy mhm. euh, à part ajjuma chaque jour nit ñaa ngi bëri nit ñi mën nañoo bëri samedi bii ñu jëm ñu am na làmb donc vraiment euh, nit ñaa ngi bëri donc combat yi am na waaye combat yi ngay wax mooy li ngay wooyee de la lutte bëri la les waaw ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo war a seetaat seen bopp. Mhm. ñoom ñi bëri ak ñi leen di fay. Mhm. mais taxi yi ñu ngi fi. Mhm. Eh, disposition yi dispositif bi ñu def yëpp mu ngi fi waaye bu fekkente ne kenn ñëwul abe ah day dañ leen di seetaan. dañ leen di seetaan. mu mel ni wax nga ko ñiy bëre ak ñiy taxawal combat ñoo war a xool seen bopp waaye itam li ci ëpp est-ce que mbër yi jotul ñu wàññi seen i la woon wóoni na est-ce que jotul ñu wàññi seen i cachet voilà est-ce que jotul ñu wàññi seeni i cachet waaw monsieur xam nga bu fekkente ne yow da nga ne lii mooy sa métier at moo toog bëriwoo rek perte nga te toog di di feyeeku ay ay ay ay euh, njëg yu yées yenn euh, nangami million yooyu nga bëri ci ñaar wala ñett ci at mi moo gën toog di ay ay ay téeméeri million wala lu lu ko ëpp. Mhm. ci at moo xam ni doo ko am. mais nag ñoom ñoo xam. ñoom ñuy proposé ak ñoom ñi ñuy fay. Mhm. texte daal mu ngi fi ku bëgg def lii fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar loolu la ñuy gérer. Mhm. waaye nag waxtaan bi ak euh, waxaale bi kooku ñun bokkuñu si. alors euh, Thierno Ka noo gisee yenn mbër yi nga xamante ni ñi ngi tàmbali di sànni seen gët ci li ñuy duppee euh, MMA di xeetu tàggat yaram di ko booleeg bëre dóor bi. MMA. Mhm. ak bëre dóor dañuy wuute lu lu bari. MMA d'abord CNG géré loolu. waaye liñ fi jot a xam. mooy mën nga puntaaba mën ngaa wéex man ngaa dóor waa ji mu daanu nga toogaat ci kawam di ko dóor lépp amul ci làmb euh, tey dañuy wax rek bëri euh, MMA waaye bariwuñu si de man de kiiw ma man de tiitul ma wax dëgg yàlla. tiitalu mhm. ma de. kon daal euh, CNG en tant que euh, mu ngànk làmb mënul aaye mbër di bëre ba pare di dem defi MMA. est-ce que CNG mën na tere mbër dem basket yi mbaa mu dem football yi. bu dee dañu jàpp affaire tàngat yaram rek. mën ngaa mën ngaa nekk mbër ba ko di football. amoon na fi dem si yàlla si yu si yéen dafa daan football. Mhm. ba pare di bëri. Mhm. am na ñeneen ñu ko doon def. kon bu fekkente ne mbër bi ne dafa bëgg basket yi. day dem li mu a su fekkee règlement làmb doo mën a jaxase ñaar yi maintenant euh, MMA bu fekkente ne bëri dóor bi wala fu di il faut nga boole waale ci gunta ba mhm. euh, moo ci nekk rek c'est nekk ak sa sa domaine ku mhm. euh, il faut que waaye man ay mhm. ma maa jaaxalu ma de maa jaaxalu ma de ma di siitilu tey jii lan mooy objectif ak perspective CNG mi ngànk làmb fii ci Sénégal dañu am kilifa mooy ministre des sports ministre des sports moo ñuy jox euh, euh, mooy jël feuille de route nañu lii laa bëgg ngeen def comme ñu ko waxee sànq euh, Ousmane Paye bi fi tegoon diggante Ousmane Paye bi fi tegoon CNG ak Matar Ba bi fi nekk tey liggéey lu ñu ak fukki ministre ak ñett mhm. ministre du sport mhm. sa veut dire que bu fekkente ne lañ lan ñu laajoon ñoom liñ ñu laaj ñoom ministre yooyu yëpp defuñu ci lenn wala manqué na wala euh, niñ ko bëgg woon defaguñu ko ni kon kon sàkkal sàkkal kii nañu dindi nañ fi CNG ba def leneen moo xam dañu am la benn CNG wala mais en tout cas daal kon ñun jugani fi mais comme pour le moment euh, li ñu laaj mooy développer lamb lamb dóor lamb champ lutte olympique ak lutte wrestling ah ñu ngi ciy def lañu mën xëy na li ñuy def dafa méngoo ak li ministre bëgg waaye ñun euh, du ñun ñooy fixé ministre moo ngi naan lii laa bëgg ñu seet naka la ñuy defee loola jërëjëf monsieur Thierno Ka maa ngi lay sant di la gërëm ci disponibilité bi merci ma fàttali ne yow yaay vice-président bu CNG di commité national de gestion de la lutte fii ci Sénégal jërëjëf